baat yi may wax mooy jëkkee sant kilifa diine Sénégal yépp ci ñaan bi ñu ñaan ba ñu def élection yu mu nekk élection yu am jàmm lu nit ñi coow coow coow bari dañu jàpp ni Sénégal jàmm gi rawatina nag suñu département bi bëri nañu ba pare ba wàññi carte yi ba proclamer résultat kenn xeexul kenn xuloowul kon loolu war ci sant yàlla kon ñi ngi ñaanal kilifa diine yi ñi ngànk tarixa bi ñi ngi ñaanal jàngu bi église bi mais ñi ngi beral ñaan ak ngërëm Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine bi nga xamee ni ñun ñëpp dañu dem bi ñu investir fekk ko bulal jógee bulal ñoo fekkaat ko teewoon fekk ko fu nekk mu ñuy ñaanal ba ndam lii yàlla teg ko suñu loxo ñoo koy ñaanal yàlla yàlla bulal fanam te yàggal ko li ci des nag ma tënk ko rek lii su amee am na boo ko war suñu àndee lu ne mën nañu ko am suñu tasaaroo am dara kon nag olof moo wax ni sànq lañ bu mbooloo day wat wer kon dynamique boobu ñun boobu la bëgg ànd ñun ñëpp ñu ànd nekk benn di xàccandoo di dóorandoo politique na lool waaye nag ku ci nekk bu ñu àndee jiitu ku jiitu jiitu ñeneen ñi topp ci ñun ñëpp ñu ànd ku nekk li mu mën ñu bàyyi koog moom mu liggéey ko defe naa bu ñu boolee li ñu mën yàlla dinañ defar dara kon wax dëgg yàlla loolu mooy li nga xamee mooy i lay wax ndax nag kii nga xamee ni moom lañ koy defal muy président de la république jar na ko ndax suñu yaakaar yépp ci wàllu li muy def pour développer Sénégal à travers PUDC à travers programme PSE mooy plan Sénégal émergent

ñu demee ci combat combat boobu ñu mën a dem ñu gañe ko ci gañe bu rafet kon ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp di wax ni combat bi ku ci nekk gis nga ci sa bopp am na loo xamee nag mënuma ko bañ a wax ci olof mooy il faut ma sant ay commune yoo xamee ni wax dëgg yàlla dafa am ndam lu rëy fa bi may jëkka mooy Poul xam ngeen ni Poul mosuñu woon gañe Martin Touré ak ñu àndal ñoom ñëpp ñu taxaw fu teeku nekk benn ba ñu gañee ko kooku war nañ leen sant gërëm leen war nañu sant Cilmaxa ndax Cilmaxa suñu demee ba même ko mooy benn commune boobu rek la ñu gañewul mais suñu demee ba nga xamee ni suñu écart ak ki ko gañee ñaar téeméeri voix la ci ku xam Kajoor xam Cilmaxa ni mu mel na ñooñu amee lañ leen sant war nañ leen sant war nañ leen gërëm beneen bi ci mooy Mbeewaan mais ne parce que dañu def ay résultats yu am solo mais résultats ñun ñëpp ñoo bokk liggéey dafa am ñoo xamee nañ fa ñu ñu suñu élection ne tey meewaan moo ci département kooku dafa am lu dafa am liggéey boo xamee dañ ko def yéen journaliste ngeen ko am na lu ngeen ci fekke am loolu moo tax résultat yi mën demee noonu te loolu nag bu ma ñëwee ba fii di def présentation war naa ko kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant donc particulièrement ñaaxe euh, parce que dafa am ay taux yoo xam ne bu ma ko jox ils ont le meilleur taux le meilleur taux du département c'est ñaaxe donc kooku ñu di gërëm leen ba ngeen xam ni wax dëgg yàlla meilleur taux bi sax effectivement ñaaxe la kon ñu sant leen gërëm leen wane tam seen taxawaay mais ngañ jur aussi parce que soo xoolee fi ñu jógee ak fi ñu egsi wax dëgg yàlla ngañ jur xam naa nekkuñu mais ñu a sant la ñun ko ñëpp yóbbaale parce que seen liggéey rafet na ñu sant aussi le maire de bi rafet na compétition bi ni mu meloon fii ci nañ ko parce que li fi dajee te sant si dafa bare suñu demee ba mu am taux bi mu am ci fii Tivaouane ñu am ko Taïba Ndiaye am ko Mérina Dakhar am ko ci commune Et on avait une coalition gagnante qui avait remporté l'élection à 48 252 voix, soit 79,14% de taux de gagne. Mais ce taux était justifié par le boycott de ces élections par l'opposition significative. En 2012, on avait un nombre de votants de 160 821 avec hein? un nombre de votants de 69 627, un taux de participation de 41,26%. La coalition gagnante en 2012 avait 49,73%. En 2017, c'est-à-dire à l'occasion de ces élections passées, on avait un nombre d'inscrits de 211 847 au niveau du département, un nombre de votes valablement exprimé de 124 667, un taux de participation de 59,37%, supérieur à l'ensemble des taux passés. Donc cela montre davantage que les responsables se sont investis à la mobilisation des électeurs pour ces élections et la coalition a eu 59 693 voix, presque 60 000 voix, avec un taux de gain de 47,88%. Donc à la lumière des élections passées, on peut se satisfaire et se glorifier, se féliciter de nos résultats. On a également remarqué au niveau de l'analyse de ces résultats que le nombre de votants, en tout cas pour la coalition Benno Bokayakar, est passé d'une moyenne de 40 000 à une moyenne aujourd'hui de 60 000. Ça veut dire qu'on a cherché par ailleurs un grenier de 20 000 votants. Je pense que cela est à encourager. Et si on se réfère, pour passer rapidement, au niveau des communes, effectivement, comme il a été souligné tout à l'heure, la commune de Niaren reste première en termes de taux de gagne avec 64%. Donc c'est une commune à féliciter et à encourager parce qu'il nous reste d'autres échéances à venir, notamment celle de 2019. Et il y a également la commune de Mayenne qui vient en deuxième position avec un taux de 63,70%. La commune de Mewan vient en troisième position avec un taux de 62,43%. La commune de notre tête de liste, Mérina Dakar, vient en quatrième position avec 59,10% du taux de gain. La commune de Morlan, notre commune, et je dis bravo au maire Islamine 6 avec qui nous avons fortement travaillé dans la commune, vient en cinquième position avec un taux de 55,53%. Euh, Pire vient avec 54,53% comme sixième. Euh, Pekes vient avec 52,99% comme septième. Euh, Nganjouf vient avec 51,62%, huitième. Koul vient avec 48,43% comme 9e. Et là, je pense qu'ils sont davantage à être félicités, surtout que c'est une commune qui n'est pas dans le classificateur. En dixième position, donc, nous avons la commune de Mboro avec 46,5%. En 11e position, nous avons la commune de Daroukoudos avec 44,99%. En 12e position, nous avons la commune de Tibaon, qui était très tiraillée en raison des responsables investis dans les autres coalitions qui vient avec 43,90%. Cela est à féliciter en raison de la âpre lutte qui existait dans la commune. En 13e position vient Taïba Ndiaye avec 41,62%. En 14e position, Chérif Lo avec 38,44%. En 15e position, Noto Guijama avec 38,06%. En 16e position, Mehé avec 35,21%. En 17e position, Pambal avec 31,70%. Vous remarquerez que nous sommes 18 communes dans le département. Chilmaha nous n'avons pas gagné, mais je pense que nous avons résorbé le gap qui nous séparait de cette commune. Donc, en définitive, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit de résultats provisoires, de résultats départementaux. Mais dans le département de Tuaoun, n'ayant pas constaté des contestations, nous espérons que ces résultats seront confirmés par les instances y habilitées. Ce que je dirais en conclusion, c'est de remercier tout un chacun. Parce que quel que soit le taux obtenu dans une commune, nous avons tous participé à la victoire et c'est cela qui est important. Il est, il est important donc que nous gardions cette unité pour que les échéances en venir, c'est dans 18 mois, que nous puissions maintenir la dynamique unitaire qui nous permettra d'offrir une victoire à son excellence, le président du Mansour, dès le premier. Ngagne Diouf it kañ nañ ko par rapport ak li mu amoon bële passé ci référendum bi loolu tamit satisfaction la xanaa ma ñaax rek nit ñi wax leen ni solution bi nu am moo war a continuer dans 18 mois nan fexe ba def organisation boo xam ne dañ koy optimiser organisation boobu moo mën a tax ñu gañe élection yi pour la du wax nag sama commune bopp commune Ngaye Mekhe. parce que boo waxee dañ naan kii kat xanaa dafa gañe rek bëgg a ci ñëw kaw ba mu gañe mais am nañ fa ay difficulté difficulté bi mooy maire bi àndul ak ñun ancien maire bi àndul ak ñun maire bi dafa demandé ñu voté ñu nekk deuxième sur la liste dama gañe ko cent mille deux ma gañe ko mille deux cent voix troisième bi sur moom la maire bi àndal mooy pire ñu gañe ko mille cinq cent voix loolu tamit daf ñu am jàngat bu ñu ci war a am boo nee da ngaa bokk fenn da feeñ feeñ bu wóor taxaw foofu dañ def réunion nga xam si moo am mu jaar jaar muy ànd ak Macky Sall tricher moom lu tax ñu mën a dem fenn li ci am solo mooy ne ñëpp jàpp fi jàpp parce que élection yi ñëw c'est à notre portée may yokk ci rek ni Kajoor moom benn bopp la li mu bañ kay mooy nga def te yëgaloo ko mais boo ko yëgalee lu ngeen def man ngeen mën a ci ànd taux de participation bi nag laaj nañu wax ci xam nga de résultat brut ne veut absolument rien dire xoolee nit ñi watewul bari na trop trop trop trop c'est presque cinquante pour cent des inscrits kooku nag il faut ñu analyser ko ñun ñëpp xam lan moo tax loolu am ba pare maintenir cadence bi maa ngi gërëm coordinateur bi parce que taxaw na taxaway coordinateur bàyyi na ñu liggéey fexé nañ bañé amal ay eh, jafé jafé ñu mu ci and parce que li am solo moy and pour hôtel Macky Sall do and pour hôtel Jean ni pour kon nak na maintenir dynamique bi rek bu ko maintenir yaakaar na ni dans 18 mois dinañ toogaat fii di waxaat wax ko xam ci ñepp ci bodal Hani böyle bir insan geliyor, direkt geliyor.